mbokk yi ñu ngi leen di nuyu ku ci nekk sa tur ak sa sant ñu ngi fii nag kër Balla Gaye 2 kii mooy yaayam vraiment ñu ngi ko masaw euh, ci coono bi nga xamante ni démb supporters yi wala yu mel am na ci kër ñu ngi lay nuyu bàyyi la nga nuyu mbokk internet yi démb nan nga dundee ndamu Balla Gaye 2 kontaan rek laa ko dundee hmm. di sant bu baax hmm. Hmm. Balla Gaye démb bi muy dem yaay bu euh, bi ngeen mujjee gisante yan kàddu ngeen déggante yéen laa ko bëggoon hmm. ban façon doom la Balla Gaye ban gis nañ cofeel bi mu am ci yow ak ni mu mel ak yow. Balla Gaye lu bu ma waxee ci moom duma ko mën a jeexal. mu hmm. rakk ji kees. Mm. ndaxte yëg na ma mm. fonk na ma mm. respecté na ma lu ma bëgg am suba ba ngoon mu ngi ci taxaw du lekk dara bàyyi ma du naan bàyyi ma lépp bàll gi mu ngi taxaw mu bëreeg Bombardier am ci defet yàlla def ñu bare bari ne Balla Gaye dafa feebaroon ci diggante bi Euh, muy bëriwaat ak Gris Bordeaux combat bi ñu bëri dañ ne woon Balla Gaye bu ñàkkee combat bi mun na génn ci làmb moment boobu lan nga yëg yow mi yaayam nga yëg ma ci dara xanaa sant yàlla ndax nit ku nekk sa nit ñi àdduna léegi hmm. kenn mënu raw si làmmiñ hmm. bu waaye neex wax waaye lu yàlla di dogal ak lu yàlla di def hmm. lan ngay wax Gris Bordeaux mi mu doon bëree jëm. Gris Bordeaux maa koy ñaanal moom it bu amatee ko ba yal na ko yàlla may ndam. Hmm. ñaar yëpp ay doom lañu. ñoom ñaar yëpp samay doom lañu. Hmm. waaw. seetaan seetaan làmb. tout à di kii seetaan làmb de. man ah. boo xasee ba ñaanal leen. Hmm. jeex na fekk ci bunt bi. xanaa ma dégg lu may dégg rek yàlla def waaw ah, ma ci biir néeg bi yor sa kurus. wala da ngay ah, ah, sama kurus kay. Hmm. mooy tëj sama bunt bu jox sama kurus di ñaan. Hmm. bi nga dégg yuuxoo xale yëpp yuuxu bala daan na bala daan na lan ma a dégg yuuxu yi damaa déglu ba ma déggee yuuxu ma gis xale di daw si di daw si maanaam lii de ndam la. Hmm. di laa santaat yàlla suñu borom. Hmm. Hmm. waaw kontaan Omar ngeen gisante démb ci guddi wala bu fa jógee rek la hmm. mu jógee làmb ji sama néeg lay jubal waaw bi ko gisee bi mu ñëwee yéen ñaar ah, ñoo jàkkaarloo kontaan kontaan xol bu feex bu neex rek ngi dese yeneen combat Sa Thiès tamit am na yeneen combat yoo xamante ne mu ngi ci kanam lan ngay dénk xale yi xanaa di leen ñaanal am victoire ci combat yi leen dese jëpp ci seen lijjantal carrière bi yal ma leen yal na ma lépp mu doon victoire hmm. loolu laa bi di ñaan hmm. ndaxte mérité nañ ko ci man hmm. taxaw nañ ma fi ma war a taxaw yéeg nañ ma fi ma war a yéeg lu ne diggante waajur ak doom ñu ko dox xeebu ñu ma benn yoon xeebu ñu ma benn yoon wax dëgg yàlla nañ ma respect bu baax a baax a baax torop jërëjëf yaay booy maa ngi lay jaajëfal bu baax a baax. maa ngi leen di ñaanal gudd fan ak yokk ba yëg ko. maa ngi ñaanal mbër yëpp. Hmm. may leen gudd fan ak yéeg ay wér le ñun yëpp samay doom lañu. Hmm. lii làmb rek la. Hmm. day jeex. ñu foo rek la day jeex. waaw ñooy mayante xaalis. day dem bi tuddante ay doom nekk ay xarit nekk ay doomi ndey mm-hmm. loolu yàlla rek a ko mën yàlla na ko yàlla defal amiin yaa rabbi jërëjëf yaay